salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen rajo Baol Média ñu fa yéene leen a digtal xibaar yi gën a fes ci bés bi depuis bañ ko tuumaalee ne dafa siif ki nga xamante ne mooy Adji Sarr ba tey kii di Ousmane Sonko jógewul di am ay visite ñu koy indil seen soutien si këram Serigne Modou sa Dieng nag dem na fa yóbbul soutien ki nga xamante ne mooy leaderu Pastef di Ousmane Sonko. gannaaw ba ñu arrêté Guy Marius Sagna Clédor ak asan Diouf kii di coordinateur des forces démocratiques bu Sénégal di Babacar Diop jàkkaarloo ak presse bi rafetlu solidarité bi nga xamante ne sénégalais yi am nañ ko jëmee ko ci ki nga xamante ne mooy Sonko nee na nag dafa jot ñu résister affronter li nga xamante ne mooy résim bu Macky Sall. Adji Sarr nag muy tuumaal Sonko ne def ko siif dina jàkkaarloo ak ak juge bu juróom-ñatteelu cabinet niki suba alxames ci 11 suba alxames ci 11 li nga xamante ne mooy réunion bu grand parti nag décidé na àndil solidarité kii di leaderu Pastef nee na moom amul lu muy reproché ki nga xamante ne mooy frère am di di xaritam Ousmane Sonko amuma sax droit di ko juger du ma yooyu kàddu nag ki nga xamante ne mooy Malick Gakou moo ko ay satu Aïssatou ay satu Diop nag nee na Ousmane Sonko moom moo saraxe boppam dafa war a assumer nee na moom gëmul li nga xamante ne mooy siif gëmul complot li mu gëm nag mooy piège ba tey affaire Sweet Beauté ñu ne ana aji Sarr fan la nekk moom mi tuumaal Sonko ne def ko siif bu ay avocat am continuer di wax ne mu ngi Dakar benn rumeur buy wax ne gis nañu ko Gàmbi mu ànd ak ñaari garde ci benn hôtel beneen sur su ne dafa jaar rek pour dem Guinée ci réewu ci réewu ambaloo si mën a doon nag ñu xam ne quotidien laas moo soulevé li nga xamante ne mooy interrogation boobu ci livraison ba mu doon amal mardi bi ñu weesu Covid 19 nag li jëm ci campagne vaccination commencé nañu ko talaata ji ñu ñu weesu yëmook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février bi ñu nekk. ki njëkk a njëkk a ñëkku nag di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr professeur Seydi ak ki nga xamante ne mooy Marie Khemesse Ngom Ndiaye terewul ñu bëri di xaar njiitu réew mi pour mu ñëkku ba tey nag deuxième vague Covid 19 tax na ba défilé 4 avril ak yeneen manifestation publique yépp du ñu am ren ci territoire national l'observateur nag. moo joxe nouvelle boobu que gouvernement bi dakkal na lépp. loolu nag moo nekkoon xibaar yi fi jot a di ñu jox leen dig daje beneen yoon incha allah ci yeneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.